goo xamante ni mi ngi sosu ñu ngi ko créé en 2020 jamono ban koy créé nag doona guddoon kuréel ndax boobee ay mbokki taalibe ay kilifa yu nekk bitim réew dëkk Daaru Muti di taalibe borom daaru di ay sëtam ñoo xalaatoon ni jamono joojee kat nit ñi aajo woon na ndimbal ngir Covid 19 beeg ak euh, état d'urgence bi jamono yi nit ñi nin aajo woon ndimbal ñu kenn ku ci nekk génne ci sa poste dara ñu boole ko ngir dimbalee ko nit ñi bi ko defee nag muy lu am solo doon loo xamante ni wax dëgg yàlla nit ñi aajo woon nañ ko ñëpp gis nañ lii jëf ju jëf ju jëf ju yaatu woon la ci la ci bu loolu weesoo nag ci lan xalaat nag lii wari su ko bàyyi muy dem nii rek waras nees koo jëmmal concrétiser ko def ko kuréel ci lan dem ci jamono yooyu sëriñ ab sëriñ Abbas mi fi nekkoon xalifa borom daal mu laaj ko ci ndigal sëriñ bi joxe ci ndigal ñaan ci boole ñoo ak njabootam ku ci mel ni sëriñ Abdul Xudoos ci la kuréel gu sosoon ak tàmbali di liggéey liggéey na fi liggéey yu rëy la ca jiitu mooy ay garab yoo xamante ne jënd nañ lu mat 110 garab def ko ci jumaa ji ak li wër jumaa ji wut lu mat 600 garab aussi séddale ko nit ñi yemuñu foofu tabax nan am maternité boo xamante ne pratiquement 30 30 millions mat na ko yemuñu foofu fi mu ne nii nag li waral bis tey ji mooy 500 lampadaires lañ jënd yoo xamante ni ci kuréel gi kuréel gi moo ko moo ko jënd ci fonds propre maanaam li ñuy cotiser di ko boole lan boole ba mat ay 9 millions et poussière ñu jënd ko ay làmp am na nag ay yéene yu baree baree bari ci kanam lu ci mel ni tabax ay école lu ci mel ni defar lu mel ni centre dialyse lu ci mel ni euh, defar ay ndox mu neex ci maam jël leen forage filtré ko ak yeneen yu dul jeex moom daal kuréel tokk defar daaru daal yéene mooy taxaw dëkk bi di dëkk borom daaru mu ci gépp wet jamono yooyu dëkk bi metti lool ñu sase ko ci sas ko ci bi ñu ci jógee ñu def ko nekk mu nekk kuréel goo xam ne ñun jigéen ñu ñu bokk ci euh, góor ñi bokk ci ñëpp waa dëkk bi yëpp bokk ci ñu di euh, def ay social lépp loo xam ne jaar na ci dëkk bi rek ñu di ko def ñu ngi commencé ci euh, ak weeru koor jot ñu joxe ci ay ay don joxe ci ay ceeb diwlin suukar biñ jógee ci loolu boo gisee ci dëkk bi koko yi fi nekk garabi koko yi fi nekk yëpp ñun ñoo ko fi def waa takku defar daar ñoo ko fi def biñ jógee ci loolu tamit xool ñi xamante ni si dañoo manqué ndox te mënuluñ ko seen bopp ñu defal leen ko biñ jógee ci loolu nag ñu def uh, loo xamante dane fàng te kenn du ko jeex mi maternité bi nga xamante ni si biñ koy def uh, te fépp fu ñu koy def dañuy dem waxtaan ceeg ñooñu laaj leen liñ soxla ñu defal leen ko mu demee ci médecin chef bi dañ koo laaj liñ soxla ñu ne maternité boo xamante ni si ne daal mucc mu lay doon ñu def ko ci ay millions yu bare bare bare bare ñu def ko marchandise marchandise bu mucc ayib biñ biñ jógee ci lool nag euh, defar nañ fi tamit ay mbaar mbaar yoo xam ne pour daara yi la Euh, ndax ku wax social wax daara te ku wax ku wax ku wax ku wax ku wax daara euh, wax ku nekk ku nekk ci da dëkk bi euh, te xam ne arxuraanu karim moo ko sos kon nag waa dëkk bu ñuy jóg dimb dimbale nit ñi daan ci boole daara yi xanaa di leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw ak adhéré ci kuréel gi bokk ci jàpp ci bu baax a baax comme niñ ci jàppee ndax kat fi mu toll tey jii eh, kuréel gi sël moom moo fi def loo xamante ni si weer wu dee donte un million dañ ko dajale ci dëkk bi ndax weer wu dee dañu teg suñu taabal woote ngont joxe ay bolok bolok bu ne cinq 2500 benn bolok bu ne cinq 500 ñu boole ko bolok bi yëpp nekk cinq 25000 ñu dajale ko suñ ko dajale ba pare bala ñoo jóge foofu dinañ dajale fa mat un million wala un million deux cent soxla nañ ko trop ndax xam nga euh, maire bi jàmbaar la wax dëgg yàlla ndax man mii di wax ak yéen man maay première adjointe au maire waaye nekk jëwriñ ci kuréel gi ndax dañ ne ndimbal na ca fekk loxol boroom euh, dëkk bi soxla na ko parce que daa mënut a daj suuf waaw